le président Macky Sall ne ne respecte pas les Sénégalais. ci te mënul wax ba ma gëm ko parce que jëfin bi dafa ñaaw jëfin bi dafa salté te te finalement on se on se rend que ñu ñu ngi ñuy yóbbu imaam wax na ko junj na ko ñu ngi ñuy yóbbu fu baaxul. te damay ñaan sama borom yàlla na yàlla roof baax baax président Macky Sall ci yëg-yëg yàlla yàllaay def lu ko neex. ci yëg-yëg ba mu am limite. gis nit ku amul limite. ku amul limite nag daañu la limite képp ka nga xam ne angee dox ne non la ma neex ut def mm. ndax am naa doole barke bàyyi laay alayhi xalifa ababacar ak alaaji fàll ak maam bàyyi ak sunu kilifa yi fi ne mm-hmm. yàlla dala naan ciix teg la wax ji jeex te nag Sénégal nag ñun bu ñu jaaxlee dañoo taal suñu loxo suñu borom mm-hmm. loolu nu am duñu gàddu yat duñu gàddu fital duñu taal suñu dëkk duñu ànd ak seytaan bu kaa lakk

quand quelqu'un mène cette tendance à soi-disant un je m'en foutisme incroyable qui qui ne s'explique pas mm. mais que mel noonu yàlla na ko yàlla arrêté mm-hmm. voilà foofu la maa yemal jërëjëf euh, imam euh, même lecture bi nga am est-ce que euh, pa pa pa Assane na interrogé wu na ci lan moo war a tax ñu war a mën a invalider liste bu yow as départemental bi est-ce que jàpp nga ne euh, jamono ji ñaan la ñuy def wala boog est-ce que combat bi ça doit se faire sur le terrain. ah oui non ñaan moom bu ko fi kenn wax. Hmm. parce que ñaan mosut a régler benn problème mon frère. même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi dàqoon a ko tegee loo xam ne teguwul. yàlla dana ko na nga taxaw. maanaam li àdduna li fi taxaw yëpp taxawaay moo koy régler. li si Anta Diop daan wax taxaw tem. réew mi ab république la. réew mi lu jiitu muy nekk ab république am réew la woon te loolu moo mag Macky Sall la mm-hmm. moo mag lay Wade moo mag du juuf mm-hmm. mag Senghor mm-hmm. réew mi depuis mille six cent trois fekk na Sénégal am ay université wallahi wallahi l'université wallahi wallahi wallahi a été créée par Khali Amar Fall wallahi depuis mille six cent trois dafa baax xam nga dafa benn waxkat bu mag bu ñuy wax Alain Focar day wax ni nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme wallaahi parce que bu ñu xamul démb démb réew mi mënuñu wax ci tey réew mi dafa traversé ay moments yu jafe waaye yàlla dimbali ñu musa am ay kilifa ak ay nit ñu diiñ ba tee réew mi ba duggul ci kaw gis nga réew mi ay révolution moo fi am la révolution torodo fii la xewee en 1776. Mhm. Mhm. université bi gënoon a rëy ci Afrique soowu jant fii la nekkoon ci piir mhm. waaw université boobu moo génne suñu mag ñëpp. kon réew mi lu jiitu muy nekk ab république sax dafa nekkoon am réew. la théocratie de Fouta tubaab yi fi lañ ko fekk. wallaahi ñun tubaab yi amuñu dara luñ ñuy jàng jàngaluñ ñu liberté jàngaluñ ñu civilisation. lépp fi lañ ko fekk. kon Sénégal réew mu mag la ci àdduna bi. léegi nag bu yàlla dogalee bu réew mi dox ba dugg ci say loxo te bi mu ciy dugg réew mi ñoo yëkkati réew mi jox la ko Macky Sall bi muy jël réew mi coup d'état wul forcé wul yi ñoo amoon ci moom yaakaar yëkkati réew mi jox ko ko ñu jox ko ko ci ban façon ci ay règles du jeu. balaa ñu ko koy jox ñu xeexal ko. ñu xeexal ko pendant trois ans. yaa ngi dégg. Mm-hmm. dafa am loo xam ni li Hegel di wax la paix c'est pas un mot. Mm-hmm. c'est une mode de vie. Mm-hmm. ku naan jàmm jàmm day fekk ngay dox ci jàmm. di wax ci jàmm mais lii ñu gis nii mu commencé di am. Hmm. démb tey du jur jàmm. ndax lan du jur jàmm mon frère. parce que réew mi duñ nangu lii am ni liñ bëgg a def ni lii amul benn république bu sérieux bu mu am. Hmm. mënoo ni yow da ngay dem ci ay élections parti bu mel ni PDS nga xam ni dafa yor nguur pendant douze ans hmm. fu nekk mu am fa ay piliers ci réew mi. yaa ngi dégg. Mhm. Hmm. jugee ci ay élections ay sénégalais doyloo leen woteel leen nga ni ñooñu mënuñoo am parrain loolu jarul jàng pour xam ni hmm. ay caaxaan la. am nañu ñeent ñeenti téeméer ñeenti té lu ëpp ñeenti téeméeri junni voix. voix mhm. loolu jarul nekk universitaire wala journaliste day laaj rek nga nekk nit pour xam ne ay caaxaan la. xam logique bi. logique parce que dafa am loo xam ni jarul nekk imam wala journaliste wala dara laaj na rek nga nekk nit pour xam ne lii jaaduwul yaa ngi dégg kon man dama leen di woo ñu ñëwaat ñu ñu am retenue parce que Sénégal ñun bëgguñu réew mi dem ci kaw mm-hmm. amul kenn ku bëgg réew mi dem ci kaw waaye mm-hmm. képp ku yaakaar ni sama yoon nekku ci mooy tax nga génn ci mm-hmm. sa yoon dina ci nekk parce que nit dangay wax fa nga war a waxe te wolof nee na lii raam ci ñag bi la jëm gis nga li fi jaar mois de mars ñun ñëpp fi la ñu fekk loolu amul kenn ku mu neex. Hmm. parce que loolu xajul ci réew mi réew mi ñun ñoo ko bokk. bu dee police ak gendarmerie ñi ko yor suñuy frère ñoo fa nekk suñuy cousin ñoo fa nekk kon am na loo xam ne waruñu nangu muy am ci réew mi te li ma gis nii muy muy raam nii. Hmm. buñ ci waxul kilifa diine jël seen ay responsabilités. Hmm. nga wax ko fi nga ko war a waxee c'est important parce que ñun boo gisee ku mel ni El Hadj Abdoulaye Dabakh marqué ñu da daan wax fi mu war a waxee. wallaahi mais bul def le médecin après la mort parce que lii am ni même bu ko opposition bi nangoo peuple sénégalais duñ ko nangu. du affaire ay PDS lañ folklore lañ ni bokk ñu parce que li liñ bëgg a def nii buñ ko defee mooy genn wàll ci réew mi élection du fa am. Mhm. parce que ku ne xam na ni élection yi ni muy demee mooy am na dix neuf communes yoo xam ne tey ci réew mi. Hmm. maanaam PDS moo fay dem yóbbaale Yewwi bu fekkee ni dañoo rejeter liste PDS mooy benn bokk yaakaar rek moo fay dem loolu tuddatul élection loolu tegutul ci ay règles du jeu hmm. yaa ngi dégg nañu nañ xoolal li ma la wax parce que bu dee dix neuf maanaam bu dee dañu rejeter liste PDS bi ñëwaguma ci liste Dakar mais nañ ñëw ci listu pas du listu PDS mais listu yeewi askan wi la ak wàllu parce que foofu ñoom ñaar ñoo fa ànd c'est important kon sénégalais yi buñ jàpp ni waa PDS la ñu rejeté mais nañ jàpp ni opposition bi la ñu rejeté c'est ça parce que ñoom ñoo coalisé ci départementaux yi ànd fa yaa ngi dégg léegi nag élection ci Sénégal ñu ni lan quarante 46 département la ñu ni am na 19 département yoo xam ni maanaam Benno Bokk Yaakaar rek moo fay présenté wu est-ce que loolu loolu logique na. d'accord d'accord kon. Mhm. dafa am foo xam ni dafa am loo xam ni waruñu fa àgg parce que réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñi di wax ñun ku ñu gën a bëgg réew mi yeewoo fi ku ñu gën a bëgg stabilité yeewoo ci réew mi. Mhm. mais wolof nee na duma topp diw boo ko déggee fa ngeen jëm moo soriwul. Mhm. d'accord loolu ki ko wax. mu ngi fii ci réew mi kon bala ñuy ñëw ci Dakar il faut sénégal yi xam ne tey li résumé bi commencé di def rawatina benn Bokk Yaakaar mooy bëgguñu élection am dañu bëgg a saboter élection yi parce que xam nañ ni perte nañ élection yi ñoom parce que li leen tiital dëgg mooy wallu giñ dégg ak yeew yi ànd nañ ci département dinañ dinañ dinañ si ñëwaat imam ah. léegi nag uh-huh. nit Serigne Babacar si mm-hmm. daa wax naan gor du ñàkk ba ñànki waaw maanaam damay bëgg ñàkk warul tax nga bëgg a ñàkk bay salit waaw pour salit mm-hmm. parce que dara du xew ci réew mi même Macky Sall tey bu buñ ko gañe woon ay élection xala dara du xew dara du yëngu ñun duñ nangu li may wax man kenn moomu ma man yeeyu moomuma Macky Sall moomu ma réew mi moomam moom d'accord d'accord c'est important parce que bu dee dañ koo gëmloo ni tey gars bu ñu euh, yeewi askan bi bu ñu jëlee réew mi mhm. moom day nekk ci jafe-jafe ak njabootam loolu ku ko bëgg def ñun duñ ko nangu parce que ñun réew mi duñ nangu fayonto boobu. ah mais li li ñuy xoolal li ñuy li ñuy xeexal yéen. reddition des comptes dafa am bu ñu la dénkee dara reddition des comptes am na. boo koy boo koy delloo di nga wax noo ko noo ko. gérer kenn bañul reddition des comptes. Hmm. mais dafa ñun ay nitu diine lañ. Hmm. ñun suñu responsabilité xam nga mooy lan nan lañ fexe ba réew mi du tàkk. ñun suñu responsabilité mooy lan mooy nan la ñuy fexee ba règle du yi ñu respecté ko. Hmm. mais jaarale ko ci yoon. jaarale ko ci yoon moom moo tax ñuy sonn. waaye tamit ñu yor réew mi il faut ñu rassurer leen ni